Moustapha Dieng di njiital Maawu Rahmati nekk ak kuy wax sëriñ Abdou Khadir Mbacke di doom ci sëriñ Muntaxa ndax di doomi sëñ Cheikh Astou Fall nekk yit kuy wax sëñ Moustapha Mbacke Moussa moom it di doomi sëñ musa Mbacke di doomi sëñ Basiru ñun ñoo nekk fii ci Maawu Rahmati ànd di liggéey ak yeneen mbokki taalibe Maawu Rahmati moom ñu ko sosoon ci 2000 6 ci ndigalal sëñ Saliou Mbacke xalifa des mourides am na yàlla yokk leeram taas ci barkeem li taxaw nit nag mu uh, sos ko muy jàppale gouvernement bi ci ndoxum Touba parce que dañ ko war di leeral uh, ndox ci Sénégal ci dëkk yëpp ci domaine gouvernement bi la Touba gi ci la bokk waaye xëy na boo ko xoolee ci doctrine murit ak ni ni mu doxe ñoom duñ bàyyi kenn ak dara rek fas ca seen loxo dañuy ànd ak yow di ko def gis nañ fi liggéey yu bare bari ñu di ko def ci dëkk bi ñoo xam ne gouvernement moo ko waroon def ay kuréel di ko def loolu nag sëñ Saliou bi mu ko defee ndaxte boobu ay forage dañ fi doon nekk paan paan yoo xam ni day yàgg lool ay verre quartier ba du am ndox te xëy na paan ba sax du ko tax a am solo la muy yar mën naa bañ a mat téeméeri junni wala du ko du ko du ko ëpp euh, wala loola nag bi mu ko defee ak ndox mi nga xam ne daa daa nekk tiw yoo xam ne bu tojee daanaka kenn du ko defaraat ñaar yooyu nag sëñ bi ñi ko yoroon sëñ wax leen nañ góor góorgóorlu ci sakkanal ndox mi ak tamit lu ñu mën a jàpp ci liggéey bi ñu jàpp ci ñu ko yor jàpp leen ndax mu gën a woyof loolu bu ko defee bu paan amee wala dara ñoom waa Maodo ñooy jënd matériel ba jox ko techniciens yi xëy na gouvernement bi lañu bokk ñu dem defar ko bu defee nga xam ne lañuy toog te ndox du am du yàgg lool foofu lañ ko tàmbalee woon moom lañu doxal nag ba nëgë ni euh, dañuy da xawoon a liggéey bi dañ ko xawoon a xàcc ñaari pàcc ñu ne bu dee ci forage yi lu mel ne pompe yi nga xam ne moom moo gën a am doole moo gën li ñuy jar moo gën a seer nañ ko bàyyi gouvernement bi waaye des yëpp pièces yi électrique yeeg yenn matériels yu ndaw yi ay des yëpp ñu ne nag bu manqué na ko maa war a mat jël ak dañuy jàppale ñu koy liggéey technicien yeeg oto yi ñu yor carburant baak lépp daal lay des lépp daal maa war a noonu la ñuy doxee ba nëgëni ba nëgëni état bi moom moo féetewoo loolu ñu ñu féetewoo yeneen yi des matériel bi des état bi nag moom bien que moo ko féetewoo it. du toujours la bu pompe paane état bi euh, joxe ko ca saasa ndax mbiri état xam nga dafa yeex ndax bu dara xewee ba muy koy dañu wax ko Jurbel Jurbel wax ko dakaar ñu def passation de marché mën a toog ay verre xam nga ay verre rek toog ko te amoon ndox it na loolu moo tax euh, pompe yooyu sax léeg-léeg bu paan amee ñu kilifa yi jënd ko am na temps yoo xam ne xalifa général des mourides mën naa joxe si mu taxaa daaw mi rek joxe na fi ñu jënd pomp léegi ñi ko jiitu woon it ñoom Sidi Maxtaar El Hadj Baara ñëpp kenn ku ci ne daa nga dugal sa loxo ci ndox mi yoo xam ni pour jàppale ko rek mu mu mu mu mu mu ñu ndax liggéey bi gën ca kanam loolu ay ñu mel na surtout waa ca ca kanam jàppale nañ fii ci ay pompe waaw ñeneen nag am na yeneen mbokk taalibe it ñoo xam ne sax paas na ay pompe ñoom dañoo tabax ay forage mën nañ ci dugg mën na góor gi El Hadj Mandiaye Jong te mu nopp lu temps yële ñaan yal na yàlla yokk yërmande ci kawam barkeel ak njabootam moom it def na fi ñaari forage euh, sëñ Seck mu sees El na fi ñaari ñaari forage euh, Serigne Mbuub bu CCBM defar na fi forage ak ñeneen xam na suñu mbokk opérateur économique koy wax Moussa Fass Sow mas naa maye ab pompe. waaw ñeneen ñi du dugal seen loxo bu ñu joxewut forage di joxe xaalis ñi ñëpp taalibe yi ñoo ci ki ñeneen ñi joxe ay am na ay kuréelu jaayante ci karte yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy ay yi ñuy joxe seen addiya borom tax borom saret yaa ngi ci borom tax yaa ngi ci diaspora bi daayira ci diaspora bi ñu ngi ci diaspora bi ñëpp dañuy joxe ci seen daayira mu dëkk yëpp laa fa fu Sénégal nekk rek ñu ngi joxe daayira maam jaara yi nga xam ne son as Thierno bu sëñ Mourtala moo ko dirigé ñoom it bu étranger yi ñoom ñëpp dañ ñuy joxe ñëpp mbokk taal bi fu nekk rek ñu ngi ci dugal seen loxo. xam nga ndox ndox moom comme ni ko wax ñun ñëpp dañoo ànd rek dañoo ànd gouvernement bi ak maa woon ñëpp rek di jéem a fexe ba saafara euh, soxla yi yi mooy ñu am ndox mu doy. bu loolu moom bu dul màggal xëy na màggal da ko gën a yokk rek bu dul dañuy fexe ba ndox mi gën a yaatu dem ci quartier yi quartier bu na am ndox loolu moom sëñ Mountakha mi surtout bu ñu wax ci mbirum ndox mi bu ñu wax rek góorgóorlu leen gën a yaatal góorgóorlu gën a yaatal mooy banaa wax ne bu dee mën ngaa résumé li nga xam ne góorgóorlu leen gën a yaatal mooy foog nit nekk ci rek ndox mooy yegg fa xam nga loolu nag xëy na moom mooy bu dara xewtit ñu fexe ba ndox mi gën a dem ci quartier yi ba waaye nekk rek mën cee jëfandikoo bu dee màggal nag xam nga rawat na màggal nga xam ne lu ma juróomi fan yoo xam ne ñi ñaa ngi naan 5 millions ba juróomi millions ci ay nit dañ fay nekk xam nga loolu moom daje fa kenn te ndox nit xam nga li mu soxla ci ndox loolu moom day doon leen loo xam ne day day day day gën a metti waaye it même gouvernement bi moom it loolu da ci def effort ndaxte mu ngi koy faral di wax daanaka màggal gu ne Tuubaa dana yokk lu mu néew néew benn forage mën naa ko ëpp ren jii yokk nañ ñetti forage yu bees ba pare ñu ñu bees laat beneen forage loolu daaw it amoon na ñaari forage nekk daanaka at mu ne rek mun ngaa wax ne jàpp na fanweeraat yi wala dara amu ci benn bis boo xam màggal goo xam ne Tuubaa yokkuwul benn forage wala nangam ren moom da ci xaw a gën a bëri ñetti forage yu bees lay am benn ma ngi ca Saam benn ma ngi ca Touba Ndiarème benn ma ngi ca Feto ca Darou Marane ak bii nekk ñu forage ñu kebe ñu beesalaat ko yooyu nag mooy bu dee bu day yokk production ndox mi ñu jël ay tuyaux jóge ci forage yooyu tuyaux yu mag du forage yooyu ñu ngi leen di liggéey fi ne forage ñu Kébé toll nañ waaye presque jeex na forage ñu Kébé tey jii lañ ko raccordé ñu ngi koy commencé woon nañu raccordement bi ci réseau bi ba tey la jeex nag dugg na ci réseau bi nee nañ ma technicien yi yor liggéey bi nee nañ ma forage su saam suba lañ koy raccordé moom dugal ko ci réseau bi bu fettoo Darou Maanaa nee nañ ma gannaaw suba lañ koy lañ koy raccordé moom it bu Touba Ndiarème mooy de Touba Ndiarème jàpp ne balaa Magal ga yegg si boobu danañ koy danañ koy danañ ko raccordé moom ñett yi moom am nañ ci leer ne danañ ko raccordé ci réseau bi waaw loolu boo dee day yokk day yokk ndox mi xam nga moom dana loolu moom mënta ñàkk ci ndax techniciens yi nag mën dana dana ci feeñ moom ndax bañ koy sampit dañ koo samp ci dañoo def ab commission ñoo jógoon Dakar waa technicien yi nekk OFOR ak ministère l'hydraulique ànd ak waa Maodo ak waa yi bañ ñëwee nag ñu dem nag wër wër ci dëkk bi ab ndox mi ni quartier yi dundoo ñu seet comme mun ñoo def seet ay ay ay quartiers yoo xam ne ay zones yoo xam ne ay place yoo xam ne ku fa def ndox mi boo paree def ci ay taw duul ki dana dana dana kii dana ko war a am force xam nga ndaxte place yu choisir la fu mel ne Sàmm bu fa jógee day wàcc jaar Madiana ba dugg Daaru Xudoos xam nga ko xam na distance bu xaw a yàgg la euh, bu xaw a kii la bu xaw a gudd la loolu lépp dañ ko def feneen fu ne rek dañ fa seet foo xam ne forage ba dana mën a am ay ay kii dana mën a renforcer ci lu yaatu boor boobee loolu lañ ko def mën a jàpp na dana te comme xam nga kii aussi tuyaux yi nañ leen a connecté mooy di leen a relier boo xasee dugg it dans des part day ndox mi day wal rek di dugg ci ay tuyaux dugg ci ma a dugg fii dem ba dem ba sori ndax connexion yi nga xam ne moo am ci différents tuyaux yi loolu moom il faut mu yokk kiiwu ndox mi euh, ndox mi ni mu toll woon daaw ci màggal gi dana yokk lu am solo jàpp na dana yokk lu cent 116 euh, kii 116 euh, mètres cubes te daaw amoon nañ 112 000 mètres cubes donc bu ñu ci yokkee bu ñu ci yokkee cent seize mètres seize mètres cubes waaw waaw seize mètres seize mille seize mille mètres cubes waaw. forage liggéey bi yow dañ ko tàmbali fan yii rek ñu ay ñaari weer ñett la am rek fan yii rek ñaari ñett la am xam nga nag liggéeyu kii liggéeyu administration it dafay kii ndaxte bu ñu defari forage it bu ñu ko prévoir dañuy num dañuy dañuy dañuy dañuy def li wax marché ndax administration nanguwul. booy liggéey nga jekk-jekk nag jox euh, sëriñ bi kaay defaral ma forage administration dañ ne dañ dañ koy def li wax concurrence dañ wax lii leen bëgg nii lañ ko bëgg a defee am ab kaye ne li moo ca nekk forage bi nii lay guddee forage bi nii lay ñëw nag kenn ku ne ñëw ne lii laa bëgg a bañ paree ñu soog seet kan lañ koy jox kan lañ koy jox it duñ ko jox rek diw mooma neex wala diw xam naa ko day boole ñaar ku mën liggéey ba la ñuy boole boo xam technique bi mën na ko am na ko waaye ku ca boole it koppar ya muy laaj du bari ku ci gën a daal boole Euh, liggéey ba nga man ko bari gën a néewi koppar loolu lañuy wax ne généralement ko wax xëy na kooku lañ koy jox waaw loolu ndax loolu nag xëy na temps boobu mu jël mooy xaw a yéex tuuti te waaye te teewut jàpp nañ ne dana yegg moom ndax tin comme ni may waxee forage bee na tey bee ñu raccordé ko ba gannaaw suba ñu ko nga xam ne kon xëy na na màggal gi waaye yegg na forage yi xam nga am na forage yoo xam mën nañu wax ne Maamar Mati moo ko defar mooy yéme na bi ma tudd sëñ sëñ sëñ El Hadji Mandiaye Diomu tudd sëñ Seck hmm? tudd ci Serigne Buub ñooñu ñoom ay taalibe lañ yoo xam ne dañoo dugal seen loxo ci kii bi defar forage boobaa nag ñoom daanaka ñooy tànn ku leen defar forage baa yëpp ba mu ñëw wala ñu ànd kook ñun la sa la ci am solo rek kooko mën ko kooko man liggéey bi waaye bu dee gouvernement bi moom ñoo muy tànn ñoom kuréelu gouvernement bi ñoo ko tànn fa laa wax ne ñoom seen liggéey bu ñu koy tànn duñ tànn ci directeur ba nekk ci foo fañ koy liggéeyee du jekk-jekk naa ko jox ma dem wala ma sàmba day war a daa war a wax ne bëgg nañoo defar forage Touba nii la forage bu war a mel nii la wax képp ku sénégalais te bëgg bëgg a ñëw bëgg caa bokk nga ñëw bëgg caa bokk ba ci bëgg a bokk nag day am ay conditions la laa wax nag léegi il faut nga jox liggéey bu baax liggéey bu se leel sel loolu moom sañuñu ko waaye bu deen comme taalibe bëgg a barkeelu moom sañ naa seet entreprise bu ma jafe-jafe yi moom kenn kenn buñ sañoon ñi fi ñëw ñëpp ci dañ fi ñëw ci nekk fi ci ay conditions yu baax yu xam ne liñ soxla lépp ci ndox ñu am ko waaye nag xëy na euh, ni ni mu demee moo tax fi na xëy na loolu léeg mu am ay ay jafe-jafe yu nekk ci biir ndax nit ñi bari nañ bari nañ lool te ñëpp ndox da daan daanaka ñëpp koy bëggandoo buñ ñu ko defee nag mën ngaa waat ne mën ngaa wax ne seconde bu ne am na ko ubbi robinet ma ngay sangu wala ma ngay bëgg a juy ndox togg wala ma bëgg a duuf nangam loolu nag mooy li ñuy wax pression bu yàggee nag pression bi da ciy feeñ bu fekkoonte ne temps normal la nii nga xam ne kii bu soxlaa ndox mën naa toog ba yàgg kenn soxla xëy na loolu du faay nag ni ko ñëpp di bëggandoo di ko defee nag moo tax ndax ndox moom yàllaa ko bëggandoo daal dafay euh, matal ko daal moo xaw a jafe bi nga dégg ci rajo bi tuuti nu mel na Ndakaaru gee nga xam ne ñu ngay defal ay projet Kër Massar bu ñu defar balaay mat ñeenti at wala juróom projet ba dépassé wu ñu ngay gën di coow rek ñàkk ndox nga xam ne kon ndox it mooy domaine boo xam ne suñu borom daa dafa neexut a jox aw nit ba muy 100 cent moom xëy na bokk na jafe-jafe nga xam ne dëkk yëpp ak même pays yëpp yu mag yi sax dañuy am ay difficultés yooyu moom waaw loolu moo ci benn teewul moom ñun ñu ngi góorgóorlu gouvernement bi ñu kuréel yi ko représenté ñu ngi góorgóorlu moo tax effort yi ñu di ko def chaque année rek ñu yokk forage yi yokk forage yi yokk kii ren fi ne bu bu baasee ñett ñeenti forage yooyu ñu defar gouvernement boole na ci jël na cinq kilomètres de linéaire ñu yokk ci ay tuyaux 55 kilomètres yokk ci étio yoo xam ne dañ ko dugal ci biir Touba jëlee ko ci dugal ko ci forage yooyu jóge ci forage ya wàcc ci dëkk bi ñu seet waaw yi nga xam ne ñëw dugg ci réseau ba fi nekkoon maire bi yokk na ci dugal na ci loxoom parce que maire bi yor na 17 kilomètres yokk ko ci loolu lépp rek jàpp nañ ne dana tax euh, dana tax dana tax euh, situation bi gën a woyof waaw gën a woyof ba jafe-jafe yi wàññi ko moom am nañ ci yàqin ne jàpp na dana wàññi ndax daaw heure bi ñu fi toll mu ñu toll ci une semaine métti woon na forage bari dafa paanoon coow li na góor waaye ren na xëy na yii fi ne forage bu paan moom paan bu paan bu yàgg waaye forage ba paan moom mënut a ci machine waaye forage boo xam ne léeg-léeg appareil bi moo moo disjoncté dañu dal dem jëndaat ko ci bis ba rek dal di koy roofaat boo ko roofaatee mu dox xam nga wute naag paan boo xam ne pompe ba yàq wala yenn pompe yi paan yooyu ñoom ay paan du dama du ma daanaka buy ko yëgee rek technicien bi dañuy dem jënd ab kii la koy la tax mu paan ab disjoncteur la wala alternateur wala nangam la mu daal dem ñu jënd ko mu ñëw daal di koy kii mu ñëw daal di koy euh, dugal ko ñu continuer liggéey noonu la liggéey moo tax ñu jàpp daal mën nañu am yaakaar daal ne xëy na jafe du mën naa bañ manqué mën naa bañ am waaw mu jafe-jafe am waaye nag jàpp nañ ne mën naa bañ tar comme ni mu tare woon daaw daal bu ci ñëpp jàppee daal jàpp nañ ko daal ne loolu moom xëy na mën naa am du toll fa mu yegg fa mu yeggoon ndaxte euh, kii yi jël forage bee si duggee le réseau bi nga xam ne yokk nañ ko ci 55 kii li ma ko wax 55 kilomètres ak yu état bi ak 5 ak 17 kilomètres yu maire bi daanaka moom boo ko boolee ci yëpp dugg ci dëkk bi jàpp nañ ne mën naa am xëy na affaire bi dana xaw a gën a euh, jafe-jafe yi dana wàññi ko. liggéey boobu nag moom mën wax ne fi ne daanaka nekk nekkut liggéey bu jëm boo xam ne. dañ caa nekk di di di ko di ci di ci di ci ak di ko daal nekk lu lu jàmp xamaa daal nit ñaa ngi koy wax nit ñi waaye man lu mel ni fii nekk euh, ci maa war ma di liggéey nag ci culture Sëñ Muntaxa jotagul ndigal loo xam ne dañ naan yéen liggéey leen ci loolu xam nga ne wax naa ne sëñ moom toujours li mu wax rek na fexe leen bay yaatal ndox mi yaatal ndox mi da leen ndox mi nag comme comme loolu dañu ko waxet hmm. hmm. waaw waaw ñun ñun waaw ñoom ci ci yaatal ndox mi lañ mooy moom lañ jot ndigal xam nga nit ñi nag techniciens yeeg ngi am nu ñëw sax ñoo xam ne ñu ngi dem ba ci sëñ bi di proposé def yëpp ak yooyu yëpp ñu am ñëw din wax ku ñëw nag nu déglu la Euh, ku day déglu la jël sa kayit teg fële waaye jotaguñ ci ndigal express ne nag lii liggéey lañ daal jotaguñ ko ñun nag ñu ngi wax am ñoo xam ne dañu ñëw ci ñun wax ak ñoo xam sax dañ ne ba waaye nag ñun boobaa ñun lépp ñun daal ñu ngi nekk ci li ñu wax daal mooy liggéey ci lii liggéey ci euh, jàpp fexe ba forage yi bañ taxaw bu fa taxawee la muy taxaw bañ a néew fexe ba fu ñu gis ab tuyau bu toj ñu defar ko fexe ba kar ndox dem ci quartier yi pour le moment daal ñun su liggéey loolu ne projet boobu nag moom doon loo xam nekkul à l'étude ñun ci ñun ñu ñu loolu moom dëgg la waaye xam nga ñuy comme ni ma ko waxoon nun nun maa war a mat yi damay damay toujours bëgg di leeral wax naa ko dañ xam ne du dee ndox mi nun du acteur principal bi acteur principal bi mooy état bi dañ koy jàppale état bi moo am obligation yóbbu ndox fu ne comme ni mu koy defee moo tax mu def forage fii ci dëkk bi donc fii moom nag état bi ñoo amoon nañ benn projet étude jéem a seet fan lañuy jël ndox mu neex indi ko ñoom am nañu projet boobu ñu ngi koy wax di ci étudier état nag xam nga loolu rôle ma ndax moom it fu mu toll war nañ seet population bi fu ñu toll ñu gën a améliorer seeni condition mu gën a ànd ak donc moom mission ma xam nga sañ na cee liggéey nag ñu waxtaan jeeg sëñ bi loolu moom état moom noonu lay fonctionner xam nga waaye nag bu dee ñun maa war a xamante dama koy wax ne ñun dañ leen di day jàpp ci liggéey bi rek liggéey bi daal fi ñun man li sama kiiraal fexe ba forage fu taxawee bu ñu ma ko waxee ne bi lee koy defar mu ñu fexe ba mun wut moyen jox technicien mu defar mu daal di koy defar France ba doxaat fu ñu xëyee da nga ne romb si équipe yi fi ñu signalé ne ay fuite am na fu ñu xëyee am na ñaari équipe yoo xam ne ay plombier ñooy réparé fuite yi ñu dem fu ñu signalé bu ñu xëyee dem defar bu ñu lay gënd matériel nu gënd matériel ba jox leen ñu dem lu war a sensé sensé ko fexe ba loolu waaw ndox mi du nekk ci mbedd mi loolu daal mooy suñu liggéey di ànd ak waa quartier yi nag Euh, di des am na quartier yoo xam ne ànd nag ñoom ñu bëgg am yokk ndox ci seen quartier temps yii am na benn ànd taxawu Madiana di ay talibé yoo xam ne seen euh, seen sëñ bu lañ bokk seen sama moo ñu boole woon ñëw nañu ba def na ñoom it ay ay extension ca quartier ba ñu ngi leen di gërëm président bi euh, gay ak ñoom àndal ñëpp ak kër si wut bu si ak ñoom it ci kilifteefu sëñ Jiili mu dénk ko sëñ Cheikh Mbacke rakam sëñ Cheikh. moom it joxaat ko sëñ sëñ sëñ Serigne ñoom it ak quartier bi yëpp ak délégué de quartier ba maam góor ñoom ñëpp vraiment taxaw nañ ci ñoom ba def ay kii yu am solo def ay dayal xaalis ba jënd pompe jënd ay tuyau def liggéey nañ ci liggéey ba am solo ñoom it ci ci ndox mi vraiment fa ñu ngi leen di gërëm waaw. mën naa wax ne moom jàpp gi moom day mbir moo xam ne moom ñëpp ñi ngi ci jàpp moom kilifa yi ñu ngi jàpp wax dëgg yàlla njabootu sëñ Tuubaa gi ñu tàmbalee ci ñoom. ñu ngi jàpp sax am kilifa yoo xam ne am na sas na seen bopp nangam bu joxe lii ñuy joxe am kilifa yoo xam yàlla bu ñu at ñuy jël seen kii dem joxe versé te banque ba ñëw ne reçu baa ngi nii am ñu koy def moom ñi taalibe am ñu koy def ñeen ñi ay reçu la am nañ ay dañuy joxe directement ñeen ñi dañuy jël ay carte am nañ taalibe yoo xam ne dañuy jël ay carte nekk ci reçu yi di ko placé ay reçu 1000 francs cent francs ba 200 francs ba 100 francs sax bu dee nit ñi buñ paree ku leen gis kenn ko ne la tolloog yow nga joxe ko bu carnet yi matee mu ñëw jox ñu dem jëlaat yeneen carnet mu ñoo jàpp loolu nag ba ca diaspora ba it ñu ngi leen di gërëm ñu ci jàpp lañ moom suñu daayira yi ne ci diaspora bi moom ñu ngi gërëm góor ñeeg jigéen ñi góor ñeeg jigéen ñi dafa am na fa dañuy ñëw du mel ne màggal gi ñu ci bari bu ñëwee bu yóbbu seen addiye bu pare dañuy ñëw dem indi seen addiye seen seen ci maawaram te ñu am seen carnet ca foofa ñu bari dañuy dem bu màggal gi passé dañuy jaar bureau ba ne versé nañ suñu banque d'ailleurs Espagne tel Espagne nii la dëkk Espagne dëkk Italie dëkk sangam dañuy ñëw versé ni kii góor ñi jigéen jigéen moom ñu bare bëri ci soxna mm, Astou Thierno moom suñu Mourtala moo fédération daayira Maam Jaara yi moom moo ko dirigé xam nga yu étranger yi wax yàlla ñoom ñu ngi leen di gërëm baax a baax ak yi nekk même ñoo xam du du ges waaye ñu ne fii ci dëkk bi ci Sénégal nekk ay Fuuta ñi nekk ay côté Daara Jolof ñu nekk ay Kaffrine ba ci fépp rek daal ay am nañ kii yoo xam ne am na fa ñu fay repente ma war a te xam nga ñu ngi leen di gërëm di leen sant vraiment ci taxawaay boobu. ah fi dugg mooy li ma wax nii rek mooy fi fi fuite yi ñu kii nga xam ne moom la ñuy réparé bu ñu xëyee fuite yi ñuy réparé fuite boo ko defee rek da ngay jënd matériel da ngay jënd ay ay matériel la te plomberie changer lii jënd tuyau jënd ay muy dépend fuite bi ni mel am na ay matériel te matériel de plomberie moom daa xaw a seer. nga am fuite boo xam ne rek li ñuy wax zone jubo muy jar parce que 100000 léeg-léeg nga dem ci fuite boo xam ne rek ci war a jënd ñaar mu 87000 fois 2 parce que 200000 francs ñu jënd ay tuyaux carburant bi kii yi noonu euh, forage yi lu paan rek ñooy jënd ñooy jënd matériel ba waaw lii nag ñun dañoo ñàkk chance parce que li ñàkk chance suñu liggéey koo xam ne sa liggéey moom tabaxoo waaye li nga liggéey da nga koy gas suul xam nga gas suul moom sa liggéey <laughs> mën naa mën naa mën naa bañ a feeñ gas dañuy gas matériel bi dugal ko ci dugal ko ci suuf mu seer nga dugal ko ci suuf pour defar waaye képp ku ku ku li ma leen waxit képp ku ku ku mas a signalé sa ab ab sa kër rek ne gis fa ndox war ngaa jàpp sa maa war mi ngi def dara ndax fiit ba jël nañ ko bu ko fa jëlee it léeg-léeg dañ jël xaalis ko fa jëlee ay matériels yi jënd donc mooy lool lépp ci lañ koy dugal nag ñu dugal li am lépp ci lañ koy dugal te ñu ngi koy saytu bu baax nag waaw ñu ngi koy saytu parce que fii nag booy boo bëggee am boo bëggee am branchement it da ngay joxe vint cinq mille francs waaye branchement boobu it da nga koy verse ci banque waaye ñëw doo ko doo ñëw ko joxee ci maaw rahmat da nga verse ko ci banque ba ñu jox la reçu nga indi reçu ba ñu defaral la dem nga certificat domicile ak at sa carte d'identité photocopie defaral la léegi it la lañ fay jógee fonds ya fa nekk lu ñu fay génn ñett signature lañ nekk man mi damay signé si Abdou Khadre si Moussa Moussa signature la ñu def moom lañ koy moom soog a génn te it na wax di yàlla ñu ngi sant yàlla daal dañ daal loolu man ci yaxanal ña ngi koy yaxanal ndaxte xam nañ ne yëfi taalibe yi yëfi taalibe yi nag ci liggéey bi ñu sëñ bi dénk rek la war a dem kooku moom ñun daal suñu kem kattan lañ ci teg moom waaw ñu lañ ci teg leen am nañ ci yaakaar ren daal am nañ ci yaakaar ren wax di yàlla ndaxte daaw heure fi toll métti woon na lool forage yi paanoon na kii woon na waret nag xëy na ñu ngi nii Euh, ba fi ñu toll forage forage bu doxu tey yi amut forage bu daralee nag machine nag moo mel noonu léeg-léeg mu dem ba yàgg rek am appareil bu disjoncté loolu am na dañuy daal dem jënd ko technicien bi changé ko loolu moom taxut moom du dara buñ ko loolu daal ci doon toll ak lii ñu yokk ci ndox mi forage yu bees yi ma la bu duggee ak li ñu yokk ci réseau bi it li ñu def cinq euh, kilomètres yoo mu nga wax ak fekk 17 kilomètres waa mairie bi bu duggee ak ci choisir ni bees fi ñu koy jaar ak extension yi def jàpp nañ ne mën naa gën a weef mën naa gën a woyof jafe-jafe soxla te dañ koy soxlaandoo waaye am nañ ci yaakaar ren mën nañoo dem jafe yi du ko tax a toll fa mu tolloon day ñaax nit ñi rek kenn ku ne fi ne <coughs> nga jël sa disposition képp koo xam ne am nga bassin sa kër fan yi <coughs> mën nga koo remplir te saxanal ko bu demaatee ba ci biir màggal gi it wala dara mu mu xaw a manqué it loolu ngay rootoon nga di si jëfandikoo xëy na balaa yàgg ñaari fan wala dara mu jeex ndaxte seetlu nañ ne saa yu màggalee rek ba fanaan balaa bëccëg ci boori tisbaar bu ñuy commencé dem rek ba ni utilisateurs yi xaw a wàññi ko gis robinet yi commencé yolomal di xel di xam nga donc ñaa jafe-jafe yu metti yi moom bu ñu nee gannaaw bu ñu nee sóola bis mag bi waaye bu ko paasee rek nga gis mu xaw a yorom daal tàmbaliwaat loolu nag ñuy ñaan suñ suñu dëgmal daal mooy gën a nag jëm ca kanam ak gën a feeñ aussi gën a feeñal daal moo tax temps yi sa boo xoolee ñoo ngi def ay reportage di ko dugal ci xam nga yéen amagut ngeen comme déet di ko dugal ci site yi di ko def ci rajo yi ak télé yi ak tamit jéem a fexe ba gën a mën a moom suñu bopp ba dem ak suñu bopp ndax nee naa léeg-léeg dimbali ñu jënd ay pompe wala nangam waaye buñ saanoon it nag ñun dañuy dem ba nag génnal suñu bopp bu fekkee ne ab pompe yàqu na bu ko góoraa mënta jënd wala ñuy dem ci keneen du ko jënd nun nu ko loolu daal mooy suñu objectif ak comme ni ko suñu waxee gën yaatal ndox mi ci quartier yi ba gën a sakk ba réseau bi ba toj toj yi néew bu amee du fa yàgg ba du yàq dara loolu daal mooy loolu gën a jëm ci kanam rek loolu daal bëgg moo tax sax mooy laaj am nañ compte yi ci banque yëpp banque yi nekk tuwaay yëpp am nañ ci muy tey tudd waaye banque bu nekk fii rek xam naa liñ ci yi ñu ci amut compte moom mu tudd ñaar wala ñett képp koo xam ne rek da ngaa yor sa addiya boo demee boo waxee maamu rahmat rek jël nga xam numéro compte bi ba waxee maamu rahmat rek ñoom waa banque bi da nga xam dañuy taal seen ordinateur compte baa ngi nii jël la ngay jël ko ñu dara nag ah, am na aussi ñu nekk ci dëkk bi am na nekk ko koy résidence Sëñ Tuubaa ko ko seeblaat ci bibliothèque seeblaat ñoo ñëppit koo fa fekkit mën nga faa joxe sa sa sa lëf waaw ñuy jox li may ñaan rek képp koo xam ne da dem ci ñoo yor kees yi nga dara nga joxe dara damay bëgg rek pour lu gën a leer na laaj ñu jox la reçu boo xam ne moo taw la nga jox so mbokk taali bi dañu bëri ay daanukat yoo xam ne dañuy joxe dara ne soxla ma reçu loolu sax xëy na baax na xam nañ ne gëm la waaye jël reçu ba moo gën ndax ko dañuy xam ne kon jox nga nga niw sàngam jox nga ko 1000 francs bu sàngam te liggéey bu war a jaar ci lu leer xam nga waaye boo ne jëluma reçu rek xam nga mi ngi doon daal ñu ngi doon daal képp ku joxe dara la tollool ba joxe junni ñu jox la reçu tolloo junni ci reçu ba joxe 1000 francs jox la ko ñun bu ñëwee dana war a xam ne kat kii lii lañ joxe lii lañ joxe am nañ nag ubbi nañ temps yi benn compte free money koo xam ne aussi bëgg nga cee euh, dawlu te bëgg nga cee barke barkeelu te xëy na doo sonn ci coono mën ngaa def it jees euh, 150 étoile 4 étoile 6 donc 700 euh, jees waaw jees 150 étoile 4 jees képp koo xam ne nga ko rek mun nga cee def sa barkeeloo waaw di leen gërëm yéen rek di leen gërëm ci li ngeen ñëw fii ñu waxtaan ndaxte dana tax xëy na ñu gën a mën a joxe message bi nga xam ne it moom la am rek ci ma war a te comme ni nga ko waxee rek liggéey eh, ci nit kilifteefu sëñ Muntaxa eh, gën a jàppal ci ndox mi ànd ko ñi nga xam ne mooy waa gouvernement bi te ñu gën a fexe ba rek eh, ndox mi gën a yaatu ci Touba ñu gën koy sakkanalit fexe it daal dara du ci yàqu fexe it dëkk bi. Euh, fépp ndox ma yegg fa euh, ci ba kenn ku ne soxla indi ko ci bu màggal gi nekkit ñu fexe ba rek ñu fi ñëw ñëpp ñëw fi ci am ndox mu sell euh, ba bañ fi jógee loolu daal mooy li nga xam ne moom lay yéene ci ñaan rek ci barke Sëñ Tuubaa Mbàkke yal na ko yàlla def